الشاكر من شكره والشاكر من شكره وناشر من نشره وغابر الذنب من استغفره ومصعب الخير أحمده حمدا يدوم على الدوام وأشكره على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب والآشام وأستغفره من كل ذنب عملته في العمد والنسيان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الديان واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاه وسلاما دائمين متلازمين على ممر الليالي والزمان اما بعد فيا ايها الناس قد علمتم أن الموت قريب والرب الرقيب فما التسويف وقد مدى العمر وأنتم في تيه الغفلة تلعبون كم تسمعون المواعظ وأنتم عنها غافلون هل لا تفكرتم في من مضى قبلكم من الأهل والجيران هل لا تذكرتم في تغير الأمور والأهوال والأزمان فقد غر الذين من قبلكم كثرة الاستغلال بالأموال والأولا بالأولاد والأموال عملوا أعمالا فأدركتهم الآجال فشقوا كأس المنون وكل من عليها فان واعلموا أنه قد أذلكم بأيامه الكرام فأكرموه وأنفقوا على الفقراء والمساكين والأيطام وتوبوا إلى الله يغفر لكم الذنوب والعشيان ولا تغتروا بالدنيا الدنية قريبة الانتقال فانية غرورة شريعة زريعة الزوال وقدموا بين يديكم صالح الأعمال ولا تتبعوا خطوات اللعين الشيطان واعلموا أن الليل والنهار يقربان كل بعيد والموت أقرب لأهدكم من حبل الوريد الحمد لله الحنان المنان ساتر العيوب غافر الذنب لمن إليه يطوب من الذنوب والعصيان خالق الخلق غني عن المشين والأعوان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو قديم الإحسان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 أنت غني عن هذا الخير لو كنت نائما أو يقظانا لولا الغفلة والنسيان لرأيت الأمر عيانا تصرم عمرك في تحصيل السيئات وما حصلت سيئا من الإحسان ووصل أهل العقول إلى نيل المعالي وقعدت أنت بالحرمان ربح النجاة والعز والبقاء وربحت أنت الهلاك والخسران هلا نبهك من نومك طوارق الزمان هلا أعجزك موت الأقارب والأهل والجيران كانوا أصد منك حرصا وما نابهم منها سوى القطن والأكفان فاض المغفون وسبق الشاهدون والعابدون إلى أعلى المنزل ومكان أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيا عباد الله أوشيكم بتقوى الله فبتقوى تدخلون الجنان وأنهاكم عن المعاشي فبالمعاشي تعذبون في النيران نوغي سنتي الله مام ميغا خامني موي بور با موي كيغا خامني موي بروم يرماندي جي موي كيغا خامني مو بيند نيت اك جيني موي كيغا خامني دينا سانت سي كيب كوكو سانت واي موي كيغا خامني دينا فاتليكو ييت كيب كوكو فاتليكو mooy ki nga xam ne it dina dimbale képp ku ko dimbale mooy ki nga xam ne dina jéggal bakkaar ci képp ku tuub mooy ki nga xam ne moo ñu yombalal ay yiw moo ñu wàcceel ay yërmande mu wërnu ci wet gépp mooy ki jël léppi mooy yàlla walla léppi sori yàlla mu sori ñu lool waaye nag doomu aadama moom samp aw xelam rek jëm ci lii nga xam ne yàlla daf ko koo sori lool ta sax li nga xamne daf ko ko jegeñal su talale loxom jom ci rek dal di koy daj fi sa sax waye melne ne ci da ko te tich waye jamono ak indi wara yete yete yu tar lol yete yete yu euh, tonda ton yo xamne ne lamb daj ko fa non koy sant mom borom bobu cant gu sax dak ci xewal yim ñu defal nogi tuub jom ci bakkar ci mom ci mbolam bakkar no ngi jégalu bu baax di sàkkul njëgal julit yépp ci mu jégal nu bàkkaar yépp ci yiñ tey ak yiñ fàtte noo ngi seede ne moom rek mooy buur moom rek mooy kis war a jàmm te waree su koo bokkaaleeg dara mooy ki nga xam ne mooy buur ba faw kuy yëkkati mbagg ak pal goo yor ngir jàppe sa bopp ne da ngaa bëgg yor dara ci moomeelam nga moom yàlla sam xel neexut jajjul dellul ginnaaw xamal ne buur moom keppa moy bur ca tambali moy bur ca faw moy buur ci bini xam ak bin xamul no ngi sedd sunu sang muhammad ab jamam la ndawam la te moy sangub bani adnan yal na yalla julli te sëlmal lu bari ci mom ay julli yu toftalo fi ak jant yaangi fenk ak a ginaaw lolu mbok yi xam nañ ñun ñëpp ne dee mom lu nu jégé la xam nañ bu baax ñun ñëpp ne borom bi mi ngi fuglu bu baax kon ana lan moy ndiku gi ak yee talu gi man dal fas yene dina don top katub yalla man dal fas yene dina saxal ay rak yu bari man dal saxal na yene dina saxal ay waqaf waye ca kanam ca kanam rek kagn la koy def kagn la koy def neeg neeg lu gi mbok yi jeufi shaytan la shaytan mo ni yomi mo nig jome ci neeg neeg lu gi nanu xamne neeg neeg lu gi ñi dem ni mbok mi don bayan waxe sagganuñ ba dem ta dem ñoom sax bett na leen bal ña leen gën a jege bett na leen te ak betteem la ko yàlla bindaale kon nag néeg néeglu du war kenn waxtu wii nu ne rawatina na ca ñun ñëpp amul ku ab jegeñaaleem wala dëkkandoom demul ci dem gu ko bett ba ci tey jii ci jambaar ji ñàkk tey yal na ko yàlla yërëm yal na lam liggéeyal Serigne Touba mu jot ca te da cay jot sax nan xam ne nun ñëpp li ëpp ci suñuy dund moom wéy na waaye teewul ñu ngi wéy ci ay càggante aljumaa yëpp danañ dégg ay waaraate waaye daa mel ne waaraate yëpp yóbbewunu nuy xalaat ci li wéy ci ay mbokk ak ci ay dëkkandoo ak ay jegeñaale ak ci soppeekuy jamono yi ci bi muy tàng ak bi muy sedd bi suñuy xel di dal ak bi suñuy xel di tiit daa mel ni yokkul dara ci sunu jàjju jëm ca yàlla te daf ko war a yokk bu baax addina day ak i coppax ndikoom lu yàgg la war nañu bari Warna bur, warna ba do la ni ko warna Moussa borom alal warna kunyak, ku ñak warna kuir ku wer warna ku nyonyu, warga kon warga ko doon ci bir ñooñu war nga jajju war nga xamne ñew di, na ba fi sawet mu won la waratem yi nga koy gis ayanan du guddii duy da jakarlo yow jak wan la limi def ngay gis jël ku la jël koo xamoon jël jàmbaar lool jël yafus nga janoog ñëpp koo doon ca ñooña war nga jajju gis lim la woon bu baax mu mel ne teewul bari ay soxla di dëkkee di nu wor rek toujours jamono bu ne daf ni fekk ci mébét yu rëy mu bëtt mébét ya jël koo kele maa ngi wax ne buñ jëlee misaal ci kin ñàkk tey mu bari woon mébét lool waaye mébétam yëpp lu mu doon lu may def ba waaru sëñ Tuubaa jëm ca kanam bu dee sa mébét loola la nga daal di dem yóbbaale woowule mébét alhamdulilahi rabbil alamin ndaw mébét bu rafet kon nun ñëpp mébét mënul ñàkk saa yoonee maa ngi yëkkati aw mébét di ko naal di mébét nattal diggam ak sharia nattal diggam ak yàlla nattal nattal diggam ak àddina nattal diggam ak lépp ba muy mébét wu rafet a rafet bu la ca dee fekkee alhamdulilahi rabbil alamin da nga mel ne def nga ko yàlla dina la fekk ci bàmmeel mel ne def nga ko mu fay la ko yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp kon kat yeete gi ma wax léegi ne addina mi ngi koy yeete dee mi ngi koy yeete na jaam bu nekk yóbbu boppam ci woowule njàngat gannaaw ba nit moom ci mébét la ko yàlla bindaale ñoo amoon ay jàmbaar yoo xam ne seen mébét yépp mooy jëme lislaam kanam seen mébét bépp mooy lii ma naal kañ lay sotti kon lañuy ñuy naal nga la nañ koy naal mu dëppoog sharia nañ koy naal mu dëppoog lu sëñ Tuubaa bëgg dëppoog lu yàlla bëgg danañu yóbbee bu lay bëtt naal ya bu bëttee naal ya fekk nu fa bu ñu demee bàmmeel fekk fa pay ga yàlla nañ ko yàlla defal nañuy dépenser suñuy alal ci yoonu yàlla nañuy dimbale faqir yi nañuy dimbale miskin yi te xamne ne loolu yi bis bu la beuté ba jël la mom la fekkon nga dajalé ko xamoo fu muy mujju cey bu fekké ne da ngaa bañoo xam ne seen waajtaay mataguloon bala balang len bayé ñu cey def lu neexul yalla nga la yow bu boba ci bamél naawsu billah yalla nañ ci yalla musal nañ bu baax ci ay jëf yu baax adina ay ciopax ndikom dafa nijanti fenke aka soxe limi gaw gaw, gaaw soppiku adduna ko gaw a gaaw fopp nañ mottandikoo top jéegoy shaytan mi nga xam wor workat la nañ xam guddi yi ak beccëg yi jëriñul ci ñun ndare jégel li sori won guddi yi ak beccëg yi daf ñi jégelal li sori won donon nga ndaw guddi ak beccëg yi di la rombu nga don mak sa waron nga tayel nga rafeton nga ñaaw nga sam xel bu fekke mi ngi dundu ca ba ngay fàttaliku doonoon na xel mu sawaroon bëggoon defaru lol kai. ay peñe ak jumtu kay ak diwu kay jamono ñew ku la ne aal ma loli ñi waje nga ne ko ho bak gëj am yàgg na ko kooka sax de borom xel mu neex la waye bu ki nga xamne xel mi mom da and ak mom ba muy jamono nituk jamono continuer ak mom ba muy doon nitug àllaaxira continuer di ba ko ci aka beri ñum dal nit dana wessu lool fu muy taleeti bopam ta daf ko wara a fi nga xamne ne fa yeggee talato sa bop dafa wara a nit ki lool lool ajuwul ci mag de ci itte rek la aju itte itte wol jëm ci sa borom tegal sa bop lo mënut sa digg ak yalla ci ay jaamu cey bo duggé ba mel do ci réccu dara yal nañ ko yàlla yombalal bu baax yaxfirullahu li wakum wa lakum wa li saa'iril muslimina amin